sëñ Modou Bey ñu fekk la fii ci Touba de ci sa kër mu mel ni kenn ci sa njaboot dafa am jafe-jafe ci wàllu tànk bi boobaak léegi yàgg lool ba sonal leen mbir mi naka la demee. mbir yi de yàlla daa dogal dañoo bëggoon alxuraan lool. Mhm. ba tax ñu joxewoon ko Darou Moussi nekkoon ko doon jàng suñu borom dogal nag boroom daara yi nag sonnati lool nag ndax jàngal na ko boo tuutee ko teewaaj xëdi maanaam ñaari xëde ko teewaaj. yàlla dogal nag doom yi borom daara ji moo ko doon allo waaye doom ji yàlla daa dogal yaramam daa xawut a neex ba tax na topp ñu wuti dara lépp dañ koo wérti maam yàlla sunu borom rek nga xam ne loolu ndoglu yàlla la dox nañ ay jéego nag ndax yóbbu nañ koy jànnatu ay yoon yoon ba yaayam mii tey ji yëwoon na doon ko seet si moom it hmm. ndax mbir mi biñ ko dalee ci daara jeg léegi yàgg na ñaata at la wala ñaata weer boobaak léegi nag war naa man ñaari at ak genn wàll hmm. waaw ndax tànk bi opéré woon nañ ko léegi ñu ne nag dañ koy opéré waat ndax tànk bi dafa am ay félit yi félit yu nekk daal ko téewéer loolu la ñu wax. Euh, opération bi fan la amee woon jannatu wala. opération bi jannatu la amee woon. Mhm. nga xam ne def nañ ci un million huit cent mille te taxagut ñu amagoon ci liñ bëgg. yàlla dogal na ñu xawtee néew doole lool nag. boobaak léegi ndax yéen a ngi dem di jëli rendez yi wala arrêté ngeen rendez yi. boobaak léegi mi ngi dem waaye tëful ba tey tànk bi déplacé fi nekk ndax nee nañ fell bi fell bi nekk ci biir tee mu wér loolu la ñu wax. léegi loolu waa jannatu ñoom mën nañ koo dindi wala ñoom lan leen wax nan la leen wax ci loolu. noonu maanaam nag waa jannatu buñ ko mënee dindi it maanaam xaaral maanaam dañ cee xaw a néew doole maanaam lu mën a fay opération bi daal. ñaata la leen wax moo ñu xaw a jaaxal. opération bi ñaata leen loo xam ne moo koy. kii jannatu nag moom waxuñu na temps moo koy opéré waaye danañu daal faaw dañ koy opéré ndax fële ji a génn. Mhm. foo ko mën di yóbbu te wuñ ko di du saafara mhm. loolu daal moom jot nañ ko ci dégg. moom jot naa wàcc alxuraan. maanaam ñaari isi ba ko tee wàcc. ñaata la war a am. war naa am fukki ak ñeent la am. léegi mbir mi bi mu amee ban taxawaay la ci waa daara ja amoon daara jam doon jànge waa daara ja moom jàmbaar la ndax sëñ Ceerno Njaay daa néew doole rek waaye nag di joxe la mu am boole ko ki ñaanam mhm. ba di sëñ Abdourahmane moom daaru musi sax mhm. yónnee woon na ma fii fukki xam nga ne lim gàddu rek daa mhm. waaye nag lépp lu di def ak lu di yéene rek ñoo ñaan ci kàttan ak Seexul rek yàlla yàlla fay moom mi am mu mel ni sëñ bi comme noonu nga ko waxee mbir mi kii na metti na diis na bi mu amee ak léegi ci ñan ak ñan ngeen jot a dem ngir euh, sàkku fa ndimbal moo xam muy kuréel gi yore alxuraan ji moo xam muy Touba ci kanam wala kuréel yi nga xam ne ni dañuy def euh, lu baax est que dem ngeen ci ñooñu. waaw demoon naa di ku ñuy wax sëñ Abdourahmane Niang mu ne moom daan la yóbbu ci xalifa bi waaye nag xalifa bi dafa neexut a gis. xalif général des Mourides. waaw muy. xalifa bi sëñ Muntaxa waaw demoon naa ci Touba ci kanam itam. Mm-hmm. ñoom nee maanaam. ordonnance daal mhm. lañ la mën a jëndal waaye mënuñu koo kii jël en charge waaw mhm. te jamono jooja mhm. boobaag léegi ñaataat la boobaag boobaag léegi nag war naa mat benn at ba barki démb rek maa ngi ciy jokkoo ak ku bokk ci ñoom kuy wax sëñ Thierno Dieng te dëkk jànnatu munu woon bu ma te amee menn pexe bu soob yàlla dinaa def sama ndimbal rabita bi di kuréel gi yore wàllum alxuraan ñoom ndax yëg nañ ko waaw ñooñu nag de moom wax dëgg yàlla jotumaa dem ci ñoom ndax nekk boo ko xoolee rek ndax yor daara rek daa doy waxuma la nag ñu tegalati lel beneen sart bu bokkut boobu mhm. xam na am nañ ci yéene loolu nag waaye nag démbati ñoom di wax dëgg yàlla waaw dëgg kon xam nga ko kuréel googu dafa nekk kuréel goo nga xam ne nii dafa lëkkale ay boroomi daara ñuy def lu baax di dimbalante ci seen biir xëy na jombut bu leen leen ko biiral ñoom itam ñu am ci ab taxawaay kon jombul ngeen def ay jéego ban jot ci mbir mi la comme alxuraan la te ki mu dal itam waa alxuraan la te ci toolub alxuraan la ko dabee. waaw loolu nag moom dama ko xamewutoon noonu moo tax waaye moo ko xamewoon noonu ba léegi dem naa ko ndax wax dëgg yàlla ci toolub alxuraan la ko dalee. Mhm. maanaam ñii dégg sama kàddu mhm. daara yi mu jógee moom dana xam. te wax dëgg yàlla nag jàmbaar la. tànk bi ku ko gis xam ne metti na ndax léeg-léeg bu ko dina ko sonal wala bu ko dikkalee ban réaction lay am. waaw moom tànk bi moom wax dëgg yàlla moom saa bu jógee bay dox nii. Uh-huh. day jam te góom bi foofu mu takket uh-huh. day siit. Uh-huh. ndax loo xam ne ñaari at maam ñi di ko takk xam nga ne te amoo benn benn pexe ah, da ngay sàkku ci jaam ñi la tane rek ñu dimbale la rek te yàlla tam ku ko di man ci kàttan suñ boobaak léegi demut fenn mu ngi ci kër gi continué wut njàng mi. waaw boobaak léegi de moom maam bu xëyee dara nafar waxtu julli nag du ko raw man mi di bàyyi moom a gën wax dëgg yàlla mhm. ndax waxtu bu ñëw da dana jàpp dana julli mhm. waaye demut fenn nag moom ndax yàqal maam lu bari yàqal nag ko daal mhm. bi nga tàmbalee ak léegi wax nga ko faj mi boobaak léegi mat na ñaari at def ngeen ci lu ëpp un million. un million huit un million huit cent mille te boobaak léegi euh, traitement bi mu ngi continuer yéen a ngi war a def deuxième opération bi kon mel na ni li ngeen jotoon na am lépp daanaka dugg na ci ngeen di sàkku ndimbal ci mbooleem jullit yi rawatina ñi nga xam ne ni defal yàlla ci mbindeef yi da leen a ñor euh, lan nga leen di wax ci sa situation bi damay tàllal leen loxo rek ñu fajal ma ko ndaxte yàlla yàlla tax mhm. man wutuma xaalis bu ma def saa poos dama ñaan yàlla rek te mu wér ak jàmm ndax xam ma wala léegi kan lay jariñ maanaam wér gi rek laa sàkku mu maanaam mu continuer di jàng jàng alxuraan ba mokkal ko jàng xam-xam sax laa ci bëggoon mu waaw waaye nag yàlla moom moo dogal loolu waaye nag ba tey maa ngi sant suñu borom rek nga xam ne boo xoolee rek da nga am ñoo tax waaw kon mbokk yi ni ngeen ko déggee ñoo ngi woon fii ci Touba de ci kër sëriñ moo du Beye bi ñëwee nag kenn ci ak njabootam di wuyoo turu sëñ Abdourahman Bey doon jànge ca Daaru Muxti ci benn daara amoon fa ab jàppante moom ak doomi borom daara ji mu dooroon ko àlluwa ci om bi boobaag léegi mat ñaari at jafe-jafe faj ko nag daal di koy jàpp loolu tax na nag mu doon def vidéo bi di sàkku ndimbal ci mbooleem jullit yi ak taalibe yi nga xam ne nii dañuy defal yàlla rek ci jaam yi te yàlla rek tax kon ni ngeen ko dégg ci vidéo bi ak ni ngeen ko gisee itam situation bu xaw a doy la mu ngi ci woo képp koo xam ne nii daal fas nga yéene defaral suñu borom ci jaamam yi ki nga xam ne tout tànk la doon jàng alxuraanul karim am ne ci kanamam te ay jafe-jafe yu ndaw rek téye ko ñu ngi ciy woo képp koo xam ne nii rek mën nga koo jàppale comme ni mu ko waxee léegi ci numéro yi ngeen di gis ci écran bi ku ko ci woo rek incha allah di ngeen jëflante di ñaan daje ci ngërëmal borom bi te itam ki nga xam ne nii moom la yàlla teg jafe-jafe bi ci nattoom bi ci njabootam suñu borom delloo ko ci sagom ci barkeb Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf